pàcc bi nga xam ni moom lañu jagleel lépp lu jëm ci wàllu euh, dëkkuwaay euh, comme di bu jot Fama Thioune lañ ciy àndal euh, tey dëkkuwaay nag dafa am loo xam nii mooy mesure d'accompagnement bi mooy climat bu baax. Mm-hmm. Euh, merci beaucoup Pape Cheikh alors euh, tey li nga xamante ne moom lañu fas yéenee waxtaane temps yëpp ñëpp ni jàmbat climat bi. Mm. ñëpp ni wax lu tax euh, ñu toog ba période bi sedd bi dugg. concrètement comme ni mu doon duggee ba ngay def sa montée et tout ça. Mm. alors aujourd'hui ñu daal di invité koo xamante ni macha allah spécialiste la en météo ñu koy woowee monsieur Bamar Diagne bonjour monsieur Bamar Diagne. Ah, bonjour Fama. ça vous allez bien. oui ça bien dans l'ensemble bonjour euh, bi leen alors tey dañu bëggoon a waxtaane li nga xamante ni moom mooy mbiru climat ma bàyyi la nga nuyoo présenté wu ñu daal di dugg ci question yi. Bamar kay bi ñu nekkee xale moom lañu daan seetaan muy présenté météo. waaw ah, ñu daan seetaan météo chaque ah euh, euh, c'est-à-dire tous les jours après après journalu journalu journalu 20 heures bi euh, dañu koy seetaan c'est-à-dire bokk na ci kanam yi nga xamante ni moo ñu yar ñun fii Sénégal moo tax bu ñu ko gisee kontaan heureusement ba bokk na itam ci groupe Futur Média parce que depuis très longtemps moo ñuy dimbali ci météo ci rajo bi la woon yi depuis RFM euh, ba di télévision Futur Média juddoo fajar gu jot xibaaru jaww ji bu ñu leen ko joxee euh, ci ndimbalu euh, Bamar Diagne la on est très content kontaan nañu ci recevoir la ndax ñun fajar gu jot ñu gërëm la ndax xam nañu sa njëriñ yenn saa yi ñu ne pourquoi nga arrêté présenter météo bi parce que dafa am kanam yoo xam ne dañu koy miin ba nga xam ni dañuy dem ba bokk ak famille yi dugg nga ba tàyyi suñu saal sans pour autant nga toog suñu wet te loolu defe naa ay souvenirs yu yu mag la euh, euh, Père Bamar. waaye merci Pape Cheikh je pense que. comme ni ko waxee yàgg naa di dugg si ne saraax si kër jàmbur yi kër yi dëgg la ne saraax du ma fëgg sax dama ñëw rek ne saraax rek dugg kay daa di commencé <laughs> mesdames et messieurs bonsoir wax sama météo wax jaww ji xam naa ku nekk di wax naa waaw kii moom lu muy wax nii kii lu muy def nii waaye mu wax li may wax rek jàpp suma fula fayda après daa di daa génn parce que ñun fii dañu koy wax souvent ci yeewu leen bi ne ñun sénégalais amuñu culture météo heureusement peut-être je sais pas peut-être loolu sama jàngat la euh, dañu am climat bu compliqué wul euh, yëpp bu ñu waree solu sax il faut ñu vérifier météo euh, bu ñu waree lekk sax il faut ñu xool météo bi lu mu wax bu ñu waree bàyyi sax il faut ñu xool météo bi lu mu wax euh, fii nag heureusement ba yàgg ngeen ñu euh, defal éducation ci wàllu météo mais noo gisee météo par exemple ci média yi d'abord balaa sujet femme bi ñu ciy ñëw. waaw je pense que météo à force de de dessus ñun au niveau de la météo à l'époque bi may liggéey. Mm-hmm. donc euh, objectif. Mm-hmm. number one moo doon. seet naka la ñu mën a dugalee météo si habitude yu Sénégalais yi mm-hmm. en Europe c'est déjà réglé parce que mhm. comme ni nga ko waxee léegi seen comportement yëpp ñu ngi ko lal ci météo. ci météo parce que aussi le temps change rapidement. en Europe aux États-Unis dans les régions tempérées. Mhm. foofu le climat est très changeant. Mm pour nous le climat est très stable. Mhm. moo tax euh, peut-être que ñi ñi intéressé ñu trop si météo. ñu ni si intéressé seulement temps wu nawet. buy taw ndax suñu mbokki baykat yi nappkat yi ak euh, kii yooyu ci la ñuy gën a intéressé suñu donc état bi ñu amaloon comment essayer de créer un réflexe mhm. au niveau des de la, des populations sénégalaises mhm. pour que à l'avenir ñu mën a intégrer seen activité ci wu météo quoi mhm, et je pense que nous avons réussi notre mission euh, modestement nous avons réussi notre mission et je pense que léegi nit ñi au fur et à mesure ñu ngi essayer seet météo lan la wax booy dem géej da ngay laaj météo lan la wax mhm. booy dem nappi ji da ngay laaj météo lan la wax mhm. suñu mbokki béykat yi léegi bu ñu daa dem defi ji seen ji wala seen yenn activité agricole yi dañuy laaj météo lan la ñu wax mhm. avion yi moom ñëpp xam nañ ko bu ñu laa décoller il faut que ñu laaj météo lan euh, la wax avant ñuy décoller mhm. donc au fur et à mesure ndànk-ndànk ndànk-ndànk météo ñuy gën a dugal ci habitude léegi nag jamono dafa soppeeku comme ni ko Fama waxee sànq rek euh, euh, dañoo dem ba léegi la climat yi gën a gën a léegi la jaww ji gën a jaxasoo ak réchauffement climatique bi ñu wax nga xam ni ay coppite day am tout le temps loolee defe naa jar na sensibiliser encore askan wi surtout ñu gën a xam comportement yi ñu war a tenir parce Euh, lu ñu dal ci jaww ji rek dégg naa borom xam-xam yi naan ñun ñoo ko sooke. ñun ñoo ko. waaw ñoo ko sooke. Mhm. effectivement mooy mooy réchauffement climatique bi. automatiquement bi nit ñi ñooy sànni si jaww ji gaz yi gaz a effet de serre yi. Mhm. maanaam gaz carbonique. Mhm. gaz carbonique depuis des années gaz carbonique boobu mooy indi tàngaayu jaww ji. Mhm. te tàngaayu jaww ji de indi jéey yu rëy rëy rëy si suñu planète bi. notamment glace yi xam ne day fondre ci pôle nord ak pôle ak pôle sud. géej gi xam ne day augmenter. et augmenter niveau. géej gi xam ne tamit day gën di tàng. chaque jour day gën di tàng. te géej gi buy gën di tàng ah, man sama mbokki samay parent ay nafakat lañ. fi mu ne xam nga ne géej gi léegi dafa jëni léegi dañu raar. jën day manqué effectivement confort bi ñu amoon bu njëkk ba. Mhm. yëpp confort bi léegi mu ngi. ba ci mbay mi day yàqu mu ngi commencé waaw. géej gi donc euh, daal léegi. Euh, réchauffement climatique bi def indi conséquences yu bare bare bare bëri mhm. alors ñu seetlu na ne mais ñii sànni gaz à effet de serre yi si jaww ji mhm. mais ñun la nit ñi la nit ñi à travers pour euh, seen croissance économique bi yokku mhm. ñooy utiliser pétrole ñooy utiliser gaz gaz carbonique ñooy utiliser euh, charbon pour di sànni CO2 bi ci ci si jaww ji donc loolu moo tax kii di gën a di gën a ñu ne bon on va intervenir sur les êtres humains ñi xam na ñooy sànni kii bi ci jaww ji e puis essayer de changer leur comportement mm-hmm. bon en Europe en Europe vraiment mu ngi commencé dox ndànk-ndànk mm-hmm. on utilise beaucoup maintenant l'énergie solaire euh, si les les énergies renouvelables moom la ñu jëkk a utiliser muy le soleil muy énergie éolienne ngelaw li muy tamit euh, euh, ndox mi. Mhm. énergie énergie hydrique bi. Mhm. ñu jóge foofu ñu ne ah lan mooy tax ba pollution bi ñuy sànni si jaww ji gën di wàññeeku wàññeekuwaat. Mhm. mooy xanaa créer essence boo xam ne mën na euh, remplacer diesel bi ñuy bi ñuy utiliser. gasoil bi ñuy utiliser. ñu ne ah ñu xalaat ne jàmbu sukkër. boo ko defaree benn utilisation bi. mën na la jox essence végétale. moom la jox biocarburant. biocarburant bi waaw biocarburant ñu koy amee si jàmb sukkar. Mhm. jàmb sukkar def naa yéen ñëpp xam ngeen jàmb sukkar. jàmbi sukkar waaw canne à sucre. canne à sucre <laughs> waaw canne mhm. Mhm. ak ak euh, tëbanaal def naa la xam ngeen tëbanaal yi. Ah. tëbanaal yi à l'époque ñun buñ gaañoo moom la daan faj si tànk. moom la tànk parce que c'est kii boobu moom la ñuy togg. def ko essence. Mhm. muy remplacer essence bi. ça se passe très bien en Inde. Mhm. ça se passe très bien au Brésil. Mhm. te yooyu yëpp pour wàññi euh, pollution bi. d'accord wàññi pollution atmosphérique bi. alors li ñu gën a seetlu mooy que euh, réchauffement climatique bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci gën a sonn moom mooy les pays sous-développés comme ñun fii Afrique ñun ñoo gën a sonn ci euh, réchauffement climatique bi pourquoi ça. waaw parce que jéey bu amee. notamment. ouragan taw yu taw yu métti yi taw yu métti yi ngelaw lu métti li ak dënn yu métti yi sécheresse yi canicule yi buy am ñun ñi xam ne ñoo nekk dans les pays sous-développés les pays d'Afrique ñu ñoo si gën a sonn mhm. te ñun ñun mooy suñu problème mooy ñun duñu sànni dara si jaww ji ou bien lu néew la waaw ñii xam ne nag ñoom ñooy gën a sànni si jaww ji si kii bi gaz yi si jaww ji. Mhm. mooy les pays du G8 ah, ñi nga xam ne ñoo gën a développé ay États-Unis Chine Russie ñoo ñooy gën a sànni mais ñooñu duñ ko yëg parce que am nañu ay motuwaay pour paare ci euh, événement yooyu. Mhm. ñun Afrique on est très très vulnérable. lu ñëw rek bu ñu dalee moom day day day day day métti suñu suñu mhm. quoi moo tax mu ne Afrique war na jóg pour essayer seet naka la ñu mën a paré à affaire réchauffement climatique yooyu quoi. naka nga gisee résolution COP 21 bi foog nga ni ñun fii ñun dinañ ci génn euh, précisément fii ñun Sénégal euh, foog nga ni défi boobu dinañ ko relever ba nga xamante ne dinañ wàññi bu baax a baax a baax suñu taux de polition bi nga xamante ne moom la ñuy dégager. waaw COP 21 bi xam nga ne nit ñi dañu daje woon euh, lu mat plus de cent cinquante pays. Mhm. dañ daje woon à Paris. pour essayer nag gëstu ci affaire euh, climat bi réchauffement climatique bi mhm. parce que chaque année dañuy daje pour seet ne naka la ñu mën a wàññee gaz taux gaz à effet de serre waaw maanaam gaz carbonique bi surtout parce que moom moo gën a dangereux mhm. léegi bi ñu dajee Paris kuréel yëpp suñu président mu nga fa woon Macky ñoom Obama ñoom ñëpp pendant une semaine ñuy gëstu di gëstu di gëstu daal seet il faut que ñu seet naka la ñu mën a wàññee dëggantaan euh, gaz yu ñuy wàññi yu ñuy sànni ci. ci jaww ji ci ci jaww ji. Mm-hmm. Euh, waxtaan nañu gëstu nañu ba am une signature ci traité boo xam ne c'est contraignant. Mm-hmm. contraignant maanaam dañ lay obligé nga wàññi sa gaz yi ngay sànni si si jaww ji. Mhm. ñëpp signé nañu ah. Mhm. ñëpp signé nañu maintenant léegi problème bi mooy application bi. Mhm. surtout tout le monde était optimiste mais nag application bi est-ce que pays yi xam ne signé nañ euh, traité boobu. est-ce que dinañ ko est que dinañ wàññi effectivement seen euh, kii amul dara lu leen di serré. lu leen di obligé. pour ñu bañ ko appliqué mais mais man loolu daf may yaaxal tout le temps COP 21 chaque année ils se réunissent tout le temps il y a des résolutions qui sont prises signé ay traités et pourtant pour aspect bi c'est très dur ndax yaayu na ni boo xamante ne ils avaient décidé de construire une grande muraille verte de Dakar à Éthiopie. Mhm. pour par exemple capturer euh, CO2 bi nga xamante ne day génn di dem ci euh, ci jaww bi et puis euh, produire oxygène mhm. parce que garab yi ñoom dañuy dañuy capturer co ba pare produire oxygène ci seen respiration ba léegi loolu kenn xamul fan la mujjee ça devait commencer par Dakar finir par Éthiopie ah déjà respecté wuñ loolu est-ce que tamit dinañ mën respecter leen c'est ça le gros gros problème parce que ñoom dañ ne dinañ diminuer seen émission yi ñuy def mhm. et en retour dinañ financer yenn projet de développement mhm. voilà. comme la grande muraille verte qui date depuis plus de dix ans mhm. mais euh, à, au Sénégal am na ay quelques gestes yu ñu fi def notamment des gestes paraît qu'il y a même un bureau qui est créé pour ça Il y a un, bureau euh, de l'environnement il y a il y a une structure qui s'occupe de la muraille verte Mm-hmm. mais nag comme dafa war a traverser Afrique yëpp de Dakar jusqu'en Éthiopie mm-hmm. chaque pays bu mu traversé daf war a daf fi war a liggéey mm-hmm. te yooyu il faut des financements donc euh, ay mécanismes yoo xam ne yu difficile la yoo xam ne peut-être que être génération yi di ñëw dañ mën a fekkee muraille vert mu pare de Dakar à Éthiopie donc euh, loolu mooy problème bi en en fait je pense qu'on va finir ak euh, li ñu dal fan yi yëpp ñu jékki-jékki rek seddaay bu ñu bu ñu bu ñu foogul woon ñëw lan moo waaw dérèglement dérèglement climat bi. d'accord d'accord loolu moo ko waral parce que janvier tout le monde sait que janvier c'est un mois de fraîcheur. ak décembre. le mois de fraîcheur décembre janvier février. Uh-huh. mooy suñu saison froide. Uh-huh. mais comme euh, dañu am ne kii bi dafa déréglé wu. waaw et même période bi dafa amoon euh, phénomène El Niño bu am fële ci les côtes de Pérou. Uh-huh. El Niño dafa nekk benn euh, ñu koy owee l'enfant Jésus. dafa nekk benn phénomène boo xam ne day indi ndox mu. Eh, air bu tàng. ngelaw lu bëri du ngelaw lu tàng ci àddina bi yëpp. d'accord donc moom moo ñëw ne saraax si pays d'Afrique yu bari yi xam ne ñoo nekk ci kon bi ok moo tax janvier bi xaw a. mën nañu njortu fan yi seddaay bi dina dem ba ay période ci kanam wala. waaw stade bi Dakar moom particulièrement d'accord Dakar xam nga moom dafa xaw a avancé ci biir géej gi. d'accord et maritime bi chaque fois day dugg. Mhm. et que tant maritime boobu mu ngi fi. Euh, mhm. Dakar moom. dinañ xaw a sedd ba ci kanam ba waaw ba ay avril. voilà moom. dina am lu mat set mois à huit mois de fraîcheur. parce que dafa dafa nekk genre béykat boo xam ne day dugg ci. ci biir géej gi la nekk quoi voilà je pense que waxtaan ak yow du doy rek ci euh, benn rubrique Fama ñu ngi la ci gërëm bu baax merci en tout cas euh, euh, Bamar Diagne. Mm. comme j'avais dit tantôt yow bokk nga ci groupe Futur Média ñu ngi lay gërëm ci sa teewaay ci yeewu leen bi. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. Et puis aussi, je, vous, de l'occasion pour vous féliciter. Merci. Et je suis de temps en temps vos émissions. Merci. dans une bonne ambiance. De gaieté. Eh bien, inspire beaucoup quand on travaille dans la joie, dans la, la gaieté. Uh -huh. Et je sais que tu avais commencé avec euh, Good Morning, je crois. Waouh, wow, Good les, les, il première matinale au Sénégal. c'était il y a ah. boobu aucune chaîne de télé def flotte matinale mu tuddee woon ko Good Morning ah. c'est resté des années durant sur 2STV merci Bama. il météo aussi. <laughs> voilà. <laughs> merci beaucoup monsieur Ba merci jërëjëf Bamar euh, Bamar Diagne merci aussi Faba Thiouna je rappelle que lépp loo xam ne wax na ko mën ngeen ko amaat en replay ci YouTube euh, euh, slash TFM.